bu baax a baax a baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV biir réew ak bitim réew nee naa leen mbégte ak contentement lay am jënd ak yéen waaye nag rawatina su ma toogee sama mag gi di Mbaye Babacar ñu fas yéene jukkil leen li gën a fës Mbaye dama leen di la kontaanee bu baax jërëjëf ajaratu Ndeye Mbacke Diop lay ziar di la ñaanal jàmm bu baax a baax di la ñaanal ajjuma jàmm di la wax juma mubarak di ko wax suñu xarit yi ñuy seetaan ci Leewtoo TV ñoom tamit di kontaan ci ñoom saa su ne. revue bi comme toujours dañ ci ànd suñu partenaire bi huile Jador indi ñu gamme bu complet diwlin bu sell set sans cholestérol indi ñu vermicelle. Hmm. macaroni hmm. ñu ne ñu ne ñu ne déet mu teg ci ataaya Jador. muy noonu sama sama sama ñu ne déet bi bul ko dencati dee ko indi xam nga man xam nga man xeeti wax yooyu damay dundal ñu ne déet mu teg ci ataaya Jador xam nga Jador dafa andi vermicelle andi spaghetti. and li nga xamante ne bii mooy macaron na ñu ne déet mu teg ci lan. mu teg ci ataaya Jador mi ngi noonu gannaaw ba ñu ànd ak Jador xam ngeen ne ba léegi ñu ngi ànd ak euh, ndox mu set mii nga xam ne moom mooy euh, eau Kayar sell neex. oyof ba pare neex a jëfandikoo mooy eau ndox mi nga xamante ne bii boo koy naan doo ci jëlee lenn lu la metti euh, eau minérale la ba nga xamante ne bii macha allah fii la ñu ko defaree ci réew mi ngeen mën koo jëfandikoo ndax dafa dafa yomb. prix bi abordable na Sénégalais yëpp am nañu accès pour jënd ci kon daal ñi nga jaajëfal équipe Kayar bi yëpp di wax ni o o Kayar mooy ndox. bi ñuy aar bi ñuy aar. noonu laa def rek na saraax ci xew-xewu làmb ak journal suñu làmb. boo mhm. xëyee ci xëtam mu njëkk nag di Mamadou Alé Ndiaye expert en combat en sport de combat sax laay wax. la nga mhm. xëyee xam ne Balla Gaye numéro 2 à 140 40 kilos. Damescu mën naa mettre kaw nga xam ne mooy moom mi nga xamante ne bii xam-xamam dafa màcc ci wàllu euh, sport de combat mooy yëkkate yooyu la kàddu euh, nee na ki nga xamante ne bii mooy euh, Balla Gaye 2 mën naa dóor Bombardier mu daanu gannaaw ba nga waxee ne am mu ngi toll ci téeméeri kilo ak ñeent fukk. nee na fi mu toll nii foofu la Balla Gaye 2 toll ci li nga xamante ne bii moom mooy poids nee na nag mën naa dóor ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier mu daanu ndax liggéey na ci bu baax a baax a baax bi mu ñëwee foofu noonu ci INSEP bu bu Paris fekk na fa ay coach nga xamante ne bii seen xam-xam màcc na ci wàllu box liggéey na ak ñoom fekk na fa ay borom xam-xam ya nga xamante ne bii seen xam-xam màcc na jëm ci li nga xamante ne bii moom mooy saytu yaramu doomu aadama ba mu am kàttan bi mu bëgg liggéey na ci côté boobu bu baax a baax ñu daal di koy laaj ne ko ñu gis ne Bombardier mooy ki nga xamante ne bii moo ëpp euh, Balla Gaye masse moo ko ëpp yaram mais Mamadou Alé Niang nee na Balla Gaye moo ëpp doole. te incha allah le 31 juillet bu ñu jàppantee li ma wax di ngeen xam ne loolu moom moo nekk Balla gay moom moo ëpp ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Bombardier doole nee na nag euh, fii ci Sénégal it Balla Gaye am na fi ay coach yi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla kenn dootu leen présenté ci li nga xamante ne bii moom mooy sport de combat ñi ngi koy toppatoo ci niñ ko war a toppatoowee. ci noonu nag du 31 au 8 août incha allah l'arène nationale. vers une semaine de mm-hmm. maanaam Gaston Meng. Mm-hmm. production. ak Charles Faye borom Leewtoo TV. nga ne mm-hmm. ay combat yu neex a neex waaw ñoom ñooñu xam nga kenn mënul tudd làmb ci Sénégal te doo leen ci boole ndax ñooy promoteurs yi nga xamante ne bi combat yi gën a mag ci Sénégal ñoo ko tëgg ci at at mii ñu nekk. muy Gaston Mbengue Pape Thialis Faye ak euh, Pape Abdou Fall borom Paf production Gaston Mbengue moo tëgg diggante Bombardier ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Balla Gaye suñu làmb tey dafa ñëw ne combat boobu kit lay doon wala duubul maanaam revanche la wala confirmation Balla Gaye day fayu wala ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier day delloo buum ca boyu boyu ga ba mu tax ripp ak defaat Balla Gaye la ko defoon loolu incha allah le 31 juillet dana leer kon daal mën na noo jàpp boobu combat bu neex a neex lay doon ci diggante Balla Gaye ak Bombardier ñu jógee foofa dal ci événement Pape Abdou Fall muy Siteu muy Siteu ak ki nga xamante ne bii mooy Papa Sow Euh, suñu làmb nee na combat boobu pour moom amul favori ñoom ñaar day def cinquante cinquante ndax ñoom ñaar la ña nga xamante ni bi dañoo bëgg combat bi te it buñ leen xoolee biñ leen mujjee gis pare nan ci côté yépp kon daal le premier tamit incha allah buñ jógee le 31 ba set le premier. wallaay wallaay wallaay làmb dana dana dekkiwaat ñu ñu mën a gis combat bu neex ci diggante xale bi nga xamante ne bii jàmm gën lay ware ànd ak waa jàmm gën yépp ak. Euh, champion bële nga xamante ne bii Parcelles Assainies lay jógee créer li nga xam ne mooy écrit bu bees nag te nag kër gu bees moom boo ko sancee mbégteeg bànneex rek moo la fa war di fekk moo moom nga ko war a ubbee mi ngi noonu moom tamit bëgg a commencé écrit ba ak li nga xamante ne bii mooy victoire bu ñu jógee foofu nag destination le 8 août la ba léegi arène nationale Pape Thialis Faye moo fay woote diggante Tapha ak ki nga xamante ne bii mooy Boy Niang suñu làmb tuddee ko le combat de tous les dangers day metti ci côté yëpp suñu làmb nee na combat bu nar a compliqué lay doon ci ñoom ñaar ndax ñoom ñaar kenn amu ci droit jël defet combat bu nar a metti la nar a doon ci ñoom ñaar ndax ñoom ñaar ñëpp ñoo bëgg combat bi fi mu nii ñoom ñaar ñëpp li wër ci combat bi du lenn la nga xamante ni lu dul victoire kese la wër ci combat bi. te noonu nag tombeur de Modou Dia et armée. Thiat mhm. fonce vers Sa Thiès jën kay rek ginnaaw ba mu daanee Modou Dia ma xale ba ca Yoff. Mhm. ki mu teg bëtam Sa Thiès la kooku mooy caat booy bambara caat nag jamono yi passé dafa nekkoon ci li nga xam ne moom mooy ay tolof tolof ndax tegle na fi ñaari defet tegale na fi ñaari defet ba fa jógee nag ci la daan armée nee na li taxoon mu jël armée mooy bañoon a tegle ñetti defet gannaaw bi nga xamante ne bii ci la ko Forus daane ak Moodu Anta nee na bañoon a tegle ñetti defet moo tax ma jël armee daan ko bi ma jëlee armée daan ko nag ci laa jëlaat ki nga xam ne moom mooy euh, Modja bu Yoof daan ko fi toll nii fi mu teg bëtam du fenn fudul ca kaw. bëgg naa bëreeg jën kayre ku ko jox Sa Thiès mu jël moom daal nee na fi mu toll nii promoteur yi rek lay déglu ndax yaramam bëggul bëggul ndox mi fenn fi mu toll nii. <laughs> te doon nag défaite par assurance contre ki nga xam ne mooy Siteu bu Kaolack. Mhm. kii di nga xam mooy a sonné maanaam instant bi ci la doon racheté wu. waaw wonewaat boppam ñu gisaat beneen Gambien ba nga xamante ne bii bokkul ak Gambien bi ñu gisoon contre assurance dafa amaat beneen combat nag. contre ki nga xamante ne bii mooy Siteu bu Kaolack waaye Kaolack la ñuy bëree ji combat bi Gambie mu ngi mujjee daan ki nga xam ne moom mooy King Kong King Kong bu Fass la mujjee daan le 19 avril 2015 ba léegi daanul kenn 2015 ak léegi ñaata at la. juróom-benn at ba léegi daanul kenn léegi nag mu bëgg fi mu toll nii wanewaat boppam bëgg a andiwaat leneen lu bees bëgg a andiwaat beneen Gambien incha allah nee na digganteem ak euh, Siteu Siteu bu kaw Kaolack danañ gis Gambien ba nga xamante ne bii bu ñuy dajji ci paquet lay doon. bu bees tàq bu te noonu nag ci Assane leen jëm Assane Ndiaye borom production la muy xam ne la nee dina dellusiwaat fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gar waaye ak affiche yu ah, ndax ba mu fa demee combat yu neex la fa tëgg. te olof Ndiaye def na jeexaat foo furub doom da fa faa war a delloo sam loxo dana fa dellu si waaye bala mu fay dem day dem Jurbel mu ñu tabaskee ba mu am trois jours la jëm Jurbel incha allah tëgg fa ko mbaa bu neex diggante Siteu bu écrit góor yam ak ki nga xamante ne bii mooy euh, ba Zos bu Karam. Siteu ak Zos Zos bu kanam ñu mën a jàpp ne combat xale la ak ku xaw a ku ko jiitu ci làmb duñu wax mag la sax ak ku ko jiitu ci làmb Zos moo jiitu Siteu ci làmb sita nekk xale ba nga xamante ni bii nag wax dëgg yàlla mu ngi ci mu ngi ci dynamique bu baax ndax fa muy ngemboo ak ña koy ña koy entouré ak euh, dynamique bu mu nekk wax dëgg yàlla mu ngi ci mu ngi ci forme bu baax nar a bëree ak ka nga xamante ni bii nag Zos barki démboo Njaay rek la daan Hercule jël bu rëy foofu ca Jurbel kon ñu mën a xaar combat bu neex combat bu rëy bu ñu ba pare foofu ca Diourbel ba mu am trois jours incha allah xam naa dina lépp lu fa jógee rek dinaa ko jéem a jox mbokk internet yi c'est topp Leewtoo TV bu ci yàlla àndee ak Bawol production assan Ndiaye moo ko jiite. ci noonu nag ka bëgg lu rëy bëgg a bett nga dafa tin ma ngi rëy ba moom dafa làqatu nëbbu lëlu dëxañu dafa naa ñett ñeent yooyu rek boo ci wax boo ci wax noonu la dafa làqatu. nëbbu dëxëñu ba pare lëlu li tax mu def loolu mooy dafa bëgg am ndam ci combat bi dafa bëgg euh, euh, bett ki nga xamante ne bii mooy Boy ci combat bi parce que gis nañ face à face am yi mu def yëpp day ñëw calmement lay wax euh, bu waree wax fukk sax benn lay wax wala ñaar neen daal fi mu toll nii li tax mu nëbbu li tax mu làqatu ndam rek moom moom moom la bëgg. combat bi nar dox ci digganteem ak Coens nar nekk combat bu metti tamit double moteur mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci euh, contrat ba nga xamante ne bii euh, champion la nara a dajal muy Coens xam nga Coens su ma juumul Diène Kaïré la mujj a dajal ñoom ñaar combat ba amateurs yi mere leen ci trop trop ndax lan doon xaar ci ñoom andee ko combat bi fa mu mujjee woon mooy ci match nul léegi nag mu war a daje ak euh, double moteur kooku di Quench mu nar a ko combat ba nga xamante ne bi combat bu neex la Quench nag fa mu euh, double moteur nag fa mu taamu pour entraîner fa mbuur la mais suñu làmb nee na euh, double moteur salle ba muy entraîner foofu la Bombardier di entraîner kon mën na nu wax ne mu ngi ci condition ya nga xamante ne bii baax na te double moteur bi ñu ko laajee neena na macha allah fi mu toll nii maa ngi yëg sama bopp bu baax a baax. te loolu nag dañuy dem ci nga xam ne mooy qualifié qualifié bu Lamsaar. mu ngi jublé uh-huh. moog ay supporteram ginnaaw bu ko waa CNG nangu la recours am di koy jox ndam ci ki nga mooy général bu général bu Fass moo ko daanoon ca arène nationale. arbitre bi yëkkati loxo ki nga xamante ne bii mooy général bu Fass wala général bu Fass la joxoon ndam li jouru làmb ji. Uh-huh. bi ñu ñibbee waa kër Koli Faye seetaanaat làmb ji daal di bind li nga xamante ne bii mooy recours déposé ko ndax ci làmb la bokk. làmb avant la pendant ak après bi làmb ji jeexee ñu bind recours déposé ko wane que arbitre bi ni leen attee ànduñu ci bi waa CNG saytoo li nga xamante ne bii mooy vidéo yi xool li nga xamante ne bii mooy euh, recours bi euh, ki nga xamante ne bii mooy kolifay yi dugal ci lañu jëlaat ndam li fu ko ci général bu fas jox ko ki nga xamante ne bii mooy kilifa yi loolee tax fans ak supporters yépp ngay zible foofa Uh-huh. te noonu la day dem ba journal journal yi record lañu jëm la muy xel xam ne nag di bombardier uh-huh. ak syndrome Tafa Tafa Gueye Tyson ak Yékini lam ci xam ne nag mooy ku ciy dem retraite rek ay défaite ngay tegle ndax ki nga bombardier a mu ne est-ce que li dal ñetti ñooñu bombardier mi ngi koy éviter pour mu dal ko ndax ñetti ñooñu nga lim ñépp ku ci nekk sa ay dernier combat ci ay défaite nga génne làmb ji muy Tafa Gueye Yékini ak Tyson mu ne est-ce que Bombardier mu ngi sóor loolu ci digganteem ak ki nga xamante ne mooy Balla Gaye wante bu jógee ci Balla Gaye am na beneen combat buy dox ci digganteem ak am Eumeu Sène mu ne ñaari combat yépp nag bu ci amee defet da leen di fekke day fekki naataangoom yooyu nga xamante ne bii mooy mooy mooy Tyson Yékini ak ki nga xamante ne bii mooy Tapha Gueye waaye Bombardier mii ma gis day <laughs> du ma wax damay noppi ko damay noppi du ma wax kanam biroogul ca noonu mm. nag Jurbel lañ jëm lan demee tabaski lay amee nag benn choc bi nga xam te ne ndéwénal lañ ko dox jox daal di koy def jox amateur yi muy ndéwénal lu duun spécial ndéwénal ak Cola production bu ñu tabaskee ba ci suba sa stade Elimanel Fall mu tëgg fa combat bu neex diggante seex ñaar mi nga xamante ne bii bëri na cinq cent cinquante neuf combat ak ki nga xamante ne bii mooy bonus bu kadam xale bi nga xam ne macha allah mi ngi ci yoon te ndax ku taxaw ci yoonam daf laa bëgg a daan drapeau bu nag drapeau boobu nag lanjang lañ ko tuddee lanjang di kenn ci ki nga xamante ne bii mooy Eumeu Sène di kenn ci ki nga xamante ne bii moom mooy ministre Matar Ba nee na ministre Matar Ba ak Eumeu seen la invité ci boobule combat incha allah ñu fas yéene ànd ak moom foofu ca ba moo dàq grand combat ba mooy dox ci Yamou saar bu Mbàkke ak déranger numéro 2 bu Écricorium combat boobu combat jànq la combat bu neex la combat boobu ñu tuddee ko Badou Diouf taalibe Bamba entrepreneur bi nga xamante ne bii moo nekk fii ci euh, Kër masaar nga xamante ne bii macha allah moom tamit ku bëgg làmb la topp làmb di di di di di di di di safoo làmb mu jël drapeau bi delloo ko waa gawar gi nga xamante ne bi foofu la foofu la yaroo foofu la jàngee métier muy garage Baba Gueye wante jëlaat drapo bi yépp delloo ko monsieur le maire Malick Fall maire de la commune de Diourbel kon bu ñu tabaskee ba ci suba si daal xam naa ne Diourbel bu ñu tabaskee ba am ba cinquième jour sax mën naa ne Diourbel yépp ay làmb la incha allah amateurs yi danañ mandi làmb bu ci yàlla àndee jërëjëfal ko bu baax a baax moom Mbaye Babacar loolu ma nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoo xanaa jaajafal ñëpp di leen wax ajuma jaam ak salaam di jaajëfal Bilal njaay mi nga xamante ne bii moo moo mooy suñu man macha allah di ko di kontaan ci moom bu baax a baax di la jaajëfal yow di jaajëfal suñu mbokk internet yi di leen wax ba suba ak jàmm ci beneen revue de l'arène fii ci Leewtoo TV. jaajëfal leen bu baax a baax yi ñu doon topp ah ci Leewtoo TV faites attention ñun ñëpp ndax Covid bi jógee wu fi waaw waaw dellu si waat surtout ça nañu baax a baax. gën a respecté gën a respecté gën a respecté mesures barrières yi. di takk li nga xamante ne bii mooy masque yi bu ñu amee gel di ko laal ba pare di moytu yenn dajaloo yu ma a. ñàkk waxuma njaay njaay mesure de barrière ñi bu am kàddu barrière wala ko bu xam ne mesure de barrière la ëpp na waaw koy ñoom a gën a bilaa la lay dégg de ah moom laay waxal xam na boppam di leen béggee bu baax a baax ah moo mm-hmm. Adja Nafi Ndiaye ñoom xam seen bopp yi feesul mm-hmm. damay kontaan ci ñoom bu baax a baax di leen bég ci yéen bu baax waaye di sant di gërëm équipe Leewtoo TV yëpp den jaajëfal waaye mention spéciale à Bilal Ndiaye Diatta damay bég ci yow noonu laay def jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV